Thank you. assemblée générale pour waxtaan ak militants yi responsables yi waaye boo gisee ñëpp ñoo ñëw coalition bi ak ñëpp di nuyu bu baax suñu njaboot ñi nga xamante ni ñoo bokk ndoo bennoo bokk yaakaar di wax rek ne tey jii li nga xam ne moo am solo mooy yàgg nañ ko wax coalition bennoo bokk yaakaar ku ne xam na ne amoon na ay jafe-jafe parce que loolu mooy dëgg yi duñu fi nekk naan dugg na fii génn na fii woy amoon na ay jafe-jafe mais jafe-jafe yi dañu waxtaan booloo pour que ñu revenir plus fort tey jii boo seetloo depuis 48 heures ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekkoon en face yaakaar ne bàyyil nañ leen terrain bi nelawatuñ parce que la coalition Benno ko Yaakaar dafa doon machine boo xamante ne nii sénégalais yi xam nañ ne Macky Sall liggéey na ci wàllu santé liggéey na ci wàllu infrastructure Sénégal démocratie yokk na fi ba pare éducation tey jii mën naa ne ville yëpp tey ay carte universitaire bi di nga gis nga ni mu ko defee donc. mën naa ne président Macky Sall tey bu ñu toogoon fii di wax wàllu programme am ak li nga xam ne moom la yéene Sénégal du ñu fi jóge donc loolu war na mën a tax tey sénégalais yi xam ne réew mi waruñu ko jox ñoo xam ne dañuy jàng parce que jàng euh, administration yow xamoo nu réew di doxe xamoo diplomatie nan lay doxe yow li nga xam mooy saaga xaste wax lu ñaaw ak tiital nit ñi ak toj ak def lu bon je pense que quand sénégalais yi ay nit la ñoo xamante ni seen xel xam nañ ne Amadou Ba mooy le candidat bi nga xam ne président Macky Sall moom la wax moo mën a am une continuité pour que réew mi mën a nekk ci dal. xam nga noo xam nga li gën a dangereux ci Sénégal mooy jël Sénégal jox ko xale yoo xam ne dañuy jàng yorum réew loolu mooy danger ci Sénégal et je pense que boo seetloo seen conférence de presse bi liñ fa nekk yëpp mooy kii sàcc la kii def na nangam. kii xam na ma wax ñoom loolu rek lañ leen xamee sos nettali saaga wax wax ju ñaaw et je pense que boo seetloo Amadou Ba tontuwu leen sax communiqué la directoire bi def ne ñii comme ay xale lañ comme nit lañ ñoo xamante nii dañuy jàng nu ñuy jàngee réew je pense que il n'ont encore pas de temps pour di wax ak ñooñu je pense que il faut que sénégalais yi xam ne euh, réew mi réew la moo xamante ni. dañu ko war a teg ci yoon dañu war a continuer perpétuer li nga xam ne moom la président Macky Sall def ko donc je pense que ñun en tout cas au niveau de Thiès on a commencé à dérouler et incha allah dinañu dem quartier par quartier dem kër par kër waxtaan ak sénégalais yi expliquer leen que le la continuité c'est élire Amadou Ba au soir du 24 mars. non xam nga amnistie il faut que nit ñi aussi ñuy bañ lëndëmal xelu nit ñi amnistie dañ ne ay manifestation violente kan moo doon manifester ku doon toj kan moo doon yàq ku doon sànni ñoo ñooñu dama ne ñi leen yónni mooy ñoo génn bërki démb ñi leen yónni ñoo génn bërki démb donc ñi doon toj ak ñi doon sàcc yëpp mais président Macky Sall dafa dépassé loolu parce que président Macky Sall c'est un homme nit la koo xam ne réew mi dafa ne bu fekkoon ne politicien kese la wala def tout pour gagner élection yi sans compétition Diomaye ak Sonko duñu génn ndax loi d'amnistie bi ñun ñoo ko voté man mi président groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar maa ko porté parce que président moo ñu ko yónnee ne moom dafa bëgg dajale li nga xam ne mooy doomu Sénégal yi góor ak jigéen mag ak ndaw loolu jàpp naa ne ku am dépassement moo koy def ba pare di wax ne am bër bërki de moo Ndiaye li ñu fi wootee du mais lan moo gën a garaaw nekk amnistier nañ fi ay rebelle yoo xam ne Casamance lañ nekkoon ñu amnistier leen tey jii nga gis ne amnistie du tey la commencé 405 avant Jésus-Christ lañ njëkk a signé décret bi nga xam ne moo njëkk a def amnistie à Athènes après la révolution de 1789 ñu gis ko les nazis après le procès de Nuremberg ñu gis ne am na une loi d'amnistie donc Sénégal rek bi ñu doon woote barki dem moom mooy dixième loi d'amnistie pour dire que déggoo li ma la wax terroriste séparatiste moo gën a garaaw maanaam koo xam ne dafa ne reconnaître ma état Sénégal damaa bëgg indépendance ñooñu amnistie na leen te gis nga il faut que nit ñi xam ne boo nekkee un homme d'état da ngay dépasser li nga xam ne moom mooy gis nga nit ku nekk am na seconde chance mais l'état prendra toutes ses responsabilités pour que la nga xamante ni mooy les menaces ak yeneen ak yeneen ñu mën ko anéantir mais li am solo ba am solo mooy président Macky Sall su fekkoon ne dañ ne indi nañ benn loi d'amnistie pour amnistier ay crime économique su boobaa ñu ne ah ñii kat dañoo bëgg a lu dañoo luubal ba pare bëgg a setal seen bopp mais dégguma loolu nag moom wóoruma wax dëgg yàlla man li ma wóor daal mooy maa ngi Cees fexe xool nan la ñuy gañee fii ci dëkk bi maintenant nag président moom ci boppam mu dem ak mu ñàkk dem loxoom bëtam tànkam mi ngi ci ñun ndax soo gisee l'engagement qu'on a pris c'est parce que le président nous a donné des instructions fermes feront tout pour que Amadou Ba ñu fal ko dès premier tour au soir du 24 mars. ñoo charge ñi nga xamante ni ñoom ñoo teew fii doyen Mor Niang ñu ngi lay nuy bu baax ak doyen Camara yéen bu ñu leen nuyoo rek nuyu nañ toute la coalition benn bokk yaakaar nuyu également les partis alliés yi nga xamante ni tey ñoo wuy si si bi nga xamante mooy. une grande assemblée générale de mobilisation des forces pour aller à la quête de la victoire le 24 mars 2024. Nous, tous les frères et sœurs de, du parti, qui est la locomotive de la coalition benn Bokk Yaakaar mooy APR. ndax nag lu ñuy njàkk APR mooy njàkk APR nag ki nga xamante ni mooy jiit li di son excellent le président Macky Sall. moom ñun dañ koo amal njukkeel ñun dañ ko amal ngërëm ndax bu dul woon moom jàpp naa ni tey lii lépp du am courage engagement am bëgg réew mi moo tax tey ñu dem ba taxaw fii di sañ a wax ngir ki mu ñu jublal ki mu ñu choisiral muy le candidat Amadou Ba ñu mën a taxaw xeexal ko ba ñu gañee les élections de 2024 c'est l'occasion pour moi nag nuyu spécialement mon frère Abdou Mbow jàpp naa ni wax na ko man ak moom réeroo wuñu ci dara dara dara dara ci àdduna ndax c'est mon frère mais c'est mon ami parce que ay nit nag fu ñuy nas di fa noccee kenn du ko fekke lépp lu ñuy yëkkatindoo fii ci Thiès ñoo koy yëkkatindoo di dóorandoo ndax nit da koy nangul générosité am da nga koy nangu yaatoom mais aussi da nga koy nangal li ko yàlla may Abdou man ak moom ñoo bokk même même génération ba ma jógee di def politique bi ma gisee daf ma ci encouragé félicité ma ne ma ñu mel ni yéen lañu soxla suñu wet parce que ñun sonn nañ lool ci fi ñu nekk bu ngeen ñëwee da ngeen ñuy dolleel loolu nag ku générewul ku bëggul jàppale président Macky Sall ku bëggul jàppale coalition benn boo ko yaakaar doo ko wax donc moom man de mën naa wax ni Abdou moo mosuma koo fekkee man ak moom ni ñuy toog de bari na mais mosuma koo fekkee mu wax lu ñaaw ci leader musuma ko fekk mu wax lu ñaaw ci nit koo xamante ni boole ñu àndandoo nekk benn lay wax saa su nekk loolu nag su amee du ma ñëw ba fii te duma ko seede waa jàmm gën bi nga xamante ni Abdou seen doom la mais également seen fierté la ndax nag poste bu nekk boo xamante ni dafa jëm si hémicycle bi Abdou Mbow dirigé na ko tey jàpp naa ni les plus grand projet de loi yi nga xamante ni voté nañ ko assemblée nationale courage am abnégation am xarañam moo tax loolu lépp ñu mën ko voté loolu nag man dama cee xam dara parce que ñun suñu ministère day jàll assemblée mais jàpp naa ni man su ma taxawee assemblée ma toog xam nga ñun amuñu parole ñoom ñoo am parole mais bu jëlee parole da ngay sentir ni mbokkam frère moo dugg si biir assemblée bi temps temps d'antenne bi muy am cinq minutes yi day jël trois minutes yi jagleel ko ci man di ma sant di gërëm di wax vraiment engagement bi ma am. loolu nag nit ku ñàkk kiñaan rek moo koy def donc waa jàmm gën l'heure et à la mobilisation l'heure est à l'union des forces tey moom bu jàppee fii man ma jàpp fële keneen nag keneen jàpp fële jàpp naa ni on aura la victoire éclatante au soir du 24 mars si loolu nag lañu wax ni. dañu wax ni nañu gën a booloo mais également ànd ak suñu doyen yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy encadré di ñu teg si yoon di ñu wax fan la ñuy jaar liggéey bi nag yomb na ab du wax na ko nañu concentré wu autour des centre de vote centre de vote yi la ñu war a sécuriser parce que kat am na ñoo xamante ni euh, surtout suñu mbokk enseignants yi ah des fois sax duma faral di leen wax. wante ñoom ñoom ñoom euh, dañoo xaw a far. te far boobu nag jàpp naa ne li président Macky def ci enseignants yi tey bu ka bu tàmmee tànnee candidat muy Amadou Ba war nañ ko mën a jàppale. ndax tey fekk na enseignants yi ñu amoon salaire un mu def ko mu mu yokk ko ba 100 pour cent je pense que ni tey ñu ngi leen di tàllal loxo di kontaan bu baax di wax ni nañu continuer liggéey bi ku ku mën a ñëw fekk sa moroom dooleel ko def ko. tey Abdou am na ñoo xamante ne nekk na sama koñ mën na wax ak ñoom mu mën na wax ak ñoom ab ñoom ñu dégg ko parce que nag nit. fa dëkk moom doo fa ñi ñëpp mënuñoo ñoo àndandoo bëgg la loolu moo mënul nekk man mii jafe-jafe yooyu ñun dañ koy am su suñu koñ donc nag nañu yaatal booloo nekk benn ñu wax nañu ñëpp ñu àndandoo di remercier vraiment les jeunes de euh, de euh, de l'APR COJER notre frère Farba ñoom ay jàmbaar c'est des jeunes très dynamiques yi nga xam li li leen ñor mooy la victoire donc ñu leen di féliciter honorable Madaba ñu lay nuyu bu baax di nuyu ñi ñu fi teew ñëpp moo frère Lamine Gueye sunu yaay mère Mati ñu ngi nuyu nos nos frères socialistes et de l'AFP xam ni ñu sommes ensemble battons-nous pour que dimanche bii di ñëw ci waxtu bii ñu ñëw ànd ak sunu frère fii ñu victoire si centre Alelo maa ngi nag woo les autres responsables yi nga xamante ni ñoo nekk fii sunu sœur Mame Mbaye Gueye sunu frère Lamine seen ñoom Mame Sey Ndebou ñëw leen on se réunit autour de notre frère Abdou Mbow pour gagner ñun les au niveau du centre Arelo ndax booloo mooy doole a ngeen jëf merci. merci beaucoup donc waa léegi